ak El Hadj Ousseynou Ndiaye yi yéenekaay yi nga xam moom kay teggi nañ ko loxo du yi nga xam ne rek ne moom kay ñaari weeri kaso yoo xam ne rek du ko tëdd ak ñeenti junni yoo xam ne war na koo fay ak rakam jooje yi ñoom ñaar ñëpp kay bàyyi nañ leen waaye nag bu dee lu jëm ci mbirum Boubacar moom nag mbir na ni ay mbiram des na lool yow mi yéene kaay kay tribunal bi dafa mel ni dañoo amoon yërmande jëm na ci wàlluk atte geek yu ni mel fekk jamono jojee source ay yéene kaay duñu xamal ne jàngoro yi a ci juróom moom moo di moo ak moo di Njaare foofa kay jàngoro ji ma ngi fay gën a ñaay Le Soleil yéene kaay duñu xamal ne moo taxit njiitu réew yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci àdduna bi jamono eh, moom moo di pajum cosaan ak yu ni mel ndax seetlu gi moo di lu jëm ci ko ñàkk yeeg yu ni mel du matale réew yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci Afrique l'observateur yéene kaay duñu xamale maanaam daal xeex yi nga xam ne rek moom la ñuy xeex jàngoro covid 19 bi dafa am ñoo xam ne ràññeeku nañ ci lool ku ci mel ni Abdoulaye Diouf Sarr dafa mel ni kenn gisatu ko ak docteur Marie Khemesse Ngom ak docteur Bousso yéen gi dañu xam ne ñoom kay dañu leen ràññewoon lool fu ñu génn mu mel ni dañoo sàppi Sénégal ba tax na nag déglootuñu leen loolee mooy lii nga xam ne rek moom la wax ci réewum Sénégal la Tribune yéen i kaay duñu xamal ne maître Moussa Diop jamono

vox populi mbir mu doy waar nii nga xam ne rek moom moo xew ci tëngëj yéene kaay gi duñu xamal ne ñaari jëkkër ak jabar lañu fekk ñu ñu faatu ci benn nag yéene kaay gi duñu xamal ne jamono ji nag laaj ba moo di dañ leen a faat wala dañoo faatu noonu ak lu mën a xew ubbi nañ ci ab